dal leen ak jàmm jàmm de doxatul ci diggante président Macky Sall ak kii di Youssou Ndour borom mouvement fekkee ma ci boole dama ne ànd bi bu doon ànd jaayante la ma ne tàggooy jëwante la ndax kat kii di président Macky Sall dafa sàkku ñu def audit ñi nga xamante ni mooy waa Sodaaf te ku xam Sodaaf xam ni rakk Youssou Ndour di ngoone nduur moom moo ne ca bopp ba tax nag jamono ji Ngone nduur daal di génne ne problème bi nga xamante ni Macky Sall am na ko ak magam bii di Youssou Ndour yoonu Sodaaf ne ko ci ba ñu naan ñu ngi koy audité keneen la ca yoonam bokk mu di Ali Bathily nekk directeur général SODAV moom nag li mu gis xamle ko moykat kat Macky mii nañu ko xoolaat te xam ni mu ngay ëppal ëppalam gi nag moo tax mu bëgg a jël kii di SODAV daal di koy auditer ñu bàyyi mbirum audition wax ci mbirum coowal góor jigéen yi nga xamante ni ca diwaanu Mermoz la fa jotoon a xew ak yeneen i audit dal di na ciy génnaat ci libération dal di ñu koy génneel ay révélation yoo xamante ni tax na ñu bari daal di tiit ndaxte kat xamal na ñi couple boobu di góor jigéen ñi ni ngeen doon amal foofu seen fête ba ca diwaanu Mermoz appartement ba ñu jëloon dippee ko ab appartement privé la ca a xew lépp daal daal nañu koy tukkilaat ci beneen enquête boo xamante ni yees na mooy ñaar fukki góor jigéen yeeg juróom yi nga xamante ni daje woon nañ foofu ngir célébrer lii di mariage beneen couple bi waaye la ca gën a doy waar moom mooy kat couple góor jigéen yooyu indiwaatoon nañ yeneen i couple yoo xamante ni góor jigéen lañ ak yeneen i célibataire ngir rek ñu amal loolu nga xamante ni moom moo di seen i biir mariage bi waaye tamit ci fàttali rek mooy appartement privé bi nga xamante ni ñoom góor jigéen yooyu jëloon nañu ko apartement boobu ña ca naroon a tëdd yëpp ci ay couple la couple góor jigéen di daal ñoo waroon a nekk foofu ngir def seen lu leen neex ba tax nag jamono ji ñu si mën a ràññeeku ci ay produits lu ci mel ni produit lubrifiant yi ak cinquante préservatifs daal loolu la ñu mujj amaat ci ay nouvelles fii la nekk ak boobu rek man damay samp laaj rek naan Sénégal bii daal ana kañ lay soppi xaaral ma dem Guinée rek dëkk fa